إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom jalla waala di seede ne yàlla moom doo nga yeyoo ñu koy jaamu moom doo nga yeyoo ñu koy yaakaar moom doo nga yeyoo ñuy dimbali ko ci moom bool mi yiwu àdduna ak àllaaxira ci moom rek lay jógee di ko ñaan mu julli ci suñu yonente ba sallallahu alayhi wa sallam julli ci njabootam ak ña koy roy ba ila yumi din bokk jullit suñu xutba tey bi mi ngi jëm ci loo xam ne moom la suñu borom def muy suñu taxawaayu dund mi ngi noonu allazi jaala lakumu qiyaama bokk alal mooy tax doomu aadama yi dund ci kaw suuf lépp loo xam ne dañ koy taxawe ca dëkkuwaay ya ca lekk ga ca naan ga xatta jihaad fi sabilillah lépp mi ngi jëm ci alal allahuma lu dul suñu borom yàlla subhanahu wa taala day nee na xam leen ne alal jooju day fitna la suñu borom yàlla ko tasaare ci ay jaamam nu mu ko neexe ku nekk mu fitnaal la ca ñii mu jox leen loo xam ni ëpp na lool seeni soxla ñii mu yemale seeni soxla ci seen am am ñii mu xañ leen la nga xam ne mooy alal borom bi mu ne xam leen ne alal yi ak doom yi day fitna la waaye yàlla day ma nga nekk ca moom pay gu màgg looloo tax baab julit moom lu mu mën a doon ci wàllu alal lan la cay jëkk a xool mooy lan la koy jural keroog ba mu demee ci boromam subhanahu wa taala loolu dana ko xool heure bu koy sàkku ji dana ko xool su duggee ci ay loxoom ba pare lu waral lii ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day nee na doomu aadama bi du jógee place bañ koy réglé yowmal qiyaama lu doon ñu laaj ko fa ñeenti laaj waaye laaj yooyu bokk na ci suñu borom dana ko laaj ay yow diw li ma la wërsëgaloon ci alal na doon loolu lu néew la wala lu bari la nan nga def ba jot ci yàlla mooy wërsëgal doomu aadama day sabablu nan nga def ba jot ci alal jooje ndax danga koo sàkkoo ci loo xamee ne nii lu dagan la fa yàlla gërëm ñu sàkkoo fa alal wala boog dañ la koo may may bu dogan danga koo donn donn bu dagan ala kulli xaal nga commencé dërëm par dërëm fu nekk danga lay ci kanamu malaakay borom bi fan nga jaar ba jël xaalis boobee mu dugg sa moomeel loole da ngay gis su dee ne tontu la nekk na tontu lu baax yow day mucc nga génn wàllu mucc amma bu dee tontu ba nekkul tontu bu baax te mooy biñ la laajee da nga ne ah man day lii dëgg-dëgg la cëpp dama ko sàcc allaaxira kenn du fa fen dëgg-dëgg lii day dañ ma wóolu woon ma jël ko ca dëgg-dëgg lii day fa ma doon liggéeyee lañ ma ko doon neexale muy nger dëgg-dëgg lii day ca carte ga laa ko jële woon loolee mbokk dërëm par dërëm foo mas a jële alal da nga taxaw ci kanamu borom bi jàll wa ala wax ko bu ko defee làmmiñ bi wax ko loxo yi seede tànk yi seede ne dërëm bii day fii la ko jële woon loolu nag mbokk jurit lan moo lay musal li lay musal mooy ñaar yi mooy benn ba ngay wax fa nga jële alal alal jépp yaa ngi ko jële fu yàlla gërëm waaye ba ngay wax fa nga dépensé alal alal jépp yaa ngi wax ne yaa ngi ko dépensé woon fa nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala gërëm loolu moo tax ba mbokk jurit nañu xam ni jamono jii nga xam ne moom la ñuy dund suñu borom yàlla nattoo nañu ci alal loo xam ne sunu maam yi xamuñu ko woon alal bari na lool lool lool sunu jamono yi cey ji ba tey li ëpp ci doomu aadama yi xamuñu sax ni ñuy mën a contrôler seen alal loolu nag mbokk jullit mbir la moo xamee ni nii danger la ca ñaka am waaye danger la it ca ñaka amul ñu bari ci nit ñi jàpp ni man tant que bokkuma ci ñi nga xam ne dañu yor ay millions yor kër yu rafet war waruwaay bu rafet man daal bokkuguma kon danaa kër këri li la yàlla wërsëgalal ak as néew nga cay dund dund ko tey loolu da ngay gis ne gisatuloo ko kon da nga fexe ba am ndaw ñu bari riir jëm ca banque ya def leente ñoom ci ay crédit bor yoo xam ne nii ay bor yu xaram la ngiree lan ngiree teel a am la nga xam ne nii seeni moroom am nañ ko ñu bari ñu nga riir ca carte ga suñ la waxee ay chiffre d'affaires bi nga xam ne LONASE da koy def fii ci Sénégal am réewum Sénégal ñu naan la nangami nangam des centaines de milliards da ngay yéemu ci nit ñi nan la ñuy jëlee seen alal jooju di ko dugal ci carte rawatina bi ñu yàlla nattoo li ñu tudde pari foot nga xam ne suñu doom yi tey ñoom ñépp football boobee na nekk drogue ci ñoom noonu la leen yóbboo ci carte gu bon googee ay pronostic yu dul jeex kii mooy gañe kii mooy gañe xaalis bu dul jeex ñu dugal ko te te mbokk julit kee jël un milliard yàq ko ak kee jël mille franc yàq ko ñoom ñépp ay yàqkat lañu ci kanamu borom bi subhanahu wa taala mbokk julit suñu yenent sallallahu alayhi wa sallam ne woon na jamono ngi ñëw sama gannaaw nit ñi duñu toppatoote fu ñuy jële alal mi ngi noonu nit ñi duñu toppatoote fu ñuy jële alal la leen di itteel mooy nañu am nañu am loolu nag mbokk da ngay gis mbir la boo xamee ni nii tey jii ñoo ngi koy dund waaye ñi am ba pare ndax bu doon te ne dañ ne ñun kot nañu am amin boobee yóbbuñu ci ngërëmal yàlla la wallahi dañuy jël ngër loo xam ne merum yàlla la fa ñuy jële la ëpp ci ñoom delloo ko ci merum yàlla jalla waala imma ci jëfandikoo ko jëfandikoo yoo xam ne nii yu xaram la wala jëfandikoo ko jëfandikoo xam ne ak yàq la yàq googu suñu borom yàlla ni li nga xamee ni nii moom mooy day yàqkat yi ay doomi ndey seytaane lañu yàqkat yi ay doomi ndey seytaane lañu loolu nag bépp façon yàq boo xam ne nii da caa dugg nga la waay yow julit moytul lu demee noonu tey jii ak a bëri ay doomu aadama dañuy nekk di wut ay oto lan moo tax ñuy wut oto bi mooy ngir maa ngi dawal marque tel ndax oto boo xam ne nii day am sécurité rek ñu mën caa dugg facc seen aaduna ak seen njaboot la wallahi mooy marque tel ngay daw bu ko defee loolee jural la loo xam ne ni musiba bu rëy rëy la ci loo waroon a am benn oto nga mën caa faj sa soxla nga jël njëgu fukki oto ak juróom wala ñaar fukki oto yemee na ko ci benn nga dem tey ji ci portable yi xanaa portable doo la jëriñ lu dul ku la woo jot la loo bëgg seetaan seetaan ko ñu ne déedéet dafa am marque yoo xam ne mooy génn non non non iPhone X iPhone nangam des portables cinq cent mille bal des portables un million ngir lan ngiree mbooloo moo taxaw génne ko ñoo xam ne yow marque tel nga yor ñee dem ci montre yaag dem ci leneen loolee mbokk nañu xam ne alal jooju di alali yàlla mu dénk la nga koy yàqinoo ne da nga fàtte keroog bi la yàlla di taxawal ci kanamu malaaka yi ñu lay laaj dërëm par dërëm ana alal jooje fan nga mooy fa nga xam ne fa nga ko dencoon fa fa nga ko dugaloon mbokk lu mel noonu la ñuy wax lu bari bari suñu mbokk jigéen ñi ci ñu góor góorlu xam ne day yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana woon gis naa leen yéen a ëpp sawara yéen a ëpp sawara am ku jóg ci ñoom ne ko ma yëmu yàlla yónni lu tax loolu mu ne da ngeen a bari lool di suul njëkk ak bari ak rëbb maa ngi leen di dékk ngeen baril sarax jigéen ñoom doon waxal ñii wekki seeni jaaro ñii wekki seeni lam di sànni ci mbubb bi laal ñee lañu indaaloon ci xaalis yëpp ñu joxe ko mbokk sarax boobu lañu lislaam woo waaye xëyee jigéenu Sénégal mooy koo xamee ni ni tey ji mën ngaa xool année bi yëpp yëpp calculer lim sarxe wallahi bu dee ne sarxe de cinquante mille nga naa d'accord kii de ko baax la amma mu am fii léegi benn xew ma nga selem ma nga sandaga ma nga feneen ma nga feneen indi ay maaw jël lu ëpp un million ca ñu néew doole dix millions vingt millions pasar pasaree ko caméra yi wër ko ak tëgg yéeg yu kenn xamul ndax da ngaa fàtte ëllëg bi ngay taxaw sa kanamu borom mu laaj yow sama jaam yaa ngi dëkkoon ak ñoo xam ne bu ñu añee duñu reer keroog ba ngay pasar pasaree sama alal ci géew ba xanaa da ngaa fàtte woon daje bi nga nar a dajeeg man tey jii et yéen mbokku julit delloo si waat leen seen xel yéen jeune intellectuel yi nga xam ne da ngeen di roy la nga xam ne moo di yéeféer yi suñu borom mu ne wala yaxurannaka taqallubu lazina kafaru fil bilad bu mu la yéem dem ak dëkk bi yéeféer yi dem ci dëkk bi nga jàpp ne da ngaa war a def vacances Canada vacances États-Unis vacances Paris chaque vacance nga ñàkk ci lu jóge cinq à dix millions de francs te yaa ngi dëkk ak mbokk yoo xam ne yéen a bokk benn maam bu ñu añee duñu reer yaa ngi dëkk ak mbokk yoo xam ne néeg ba ñu nekk bu ñu fa tëddee jamonoy taw duñu mën a nelaw nga mën a jël bande dix jours quinze jours yàq ci des dizaines de millions nga la way ragalal yàlla fàttalikul keroog ba nga xam ne yaa ngi taxaw sa kanamu borom jëll wa ala mu lay laaj ma alal ji ana foo ko dugal mbokk julit yàlla bëggul yàq xam leen ne alal ji nattu la ni la yàlla nattoo nga denc lu ëpp sa soxla noonu la yàlla nattoo ñoo xam ne amuñu dara bari na ay dépense ñuy dépensé xatta même tudde ko sax ay dépense jaamu yàlla am na priorité yu ko gën a nekk priorité mbokk suñu Sénégal gi ba tey am na ci ay village yoo xam ne ni ngir ñu am ndox bu ñu naan daan dox lu ay kilomètres dooga am ndox boobee et pourtant day boo jëloon lu jege ay cinq à six cent mille francs da nga gis da nga mën a gas benn teen boo xam ne ay dëkk mën caa nekk di naan ndax loolee amul amul amul njëriñ na am maa ko répété fii ndax dama ko fi waxoon jamono yu passé benn soxna su baax nekk ci États-Unis dégg ko commandé ñaari teen yoo xam ne nii tey jii ñu ngi nekk fii suñu village yi dëkk yoo xam ne sonoon na lool nekk di ca naan ci ay teen six cent mille da ngay gis koo xam ne benn voyage mën na dem def ci trois millions ndax loolee nga def ci vi- ca ca voyage boobee ndax nga xalaat ne man yaa deux trois quatre villages ci Sénégal ndox ba ñuy naan seen jur ndox ba ñuy naan la ñuy arrosé seen i terrain loolu sama am am la mbokk loolu yóbbaale ko sa bàmmeel ndax xam nga valeur bu toll noonu su ko defee ñu bàyyi waa xel la nga xamee ne nii moom mooy alal ji ñu góorgóorlu ci suñu kemtalal kattan moytu ci ñaari mbir benn moytu yàq ko waaye moytu it nayee ko def ko fañ ko war a def nay gi gën a bon ci nay gi mooy nga bañ caa génne zakat et yow doomu aadama julit bu la yàlla dénkee looy faje sa soxla nga denc lu ëpp trois cent mille francs nga denc ko pendant un an nga waaye xamal ni loolee yàlla jël na un quarantième ba jox ko masakin yi jëlal sa machine à calcul quatre cent mille nga denc ren ba déwén divisé par quarante égal dix mille nga xam ne dix mille yu moomatoo ko fuqaraa yi ñoo ko moom nga jox leen ko un million vingt cinq mille quarante millions un million mi ngi noonu waaye yow le milliardaire am nga un milliard chaque année war ngaa génne vingt cinq millions nga delloo ko la nga xam ne mooy fuqaraaw yi moomu too ko àqu yàlla la soo ko deful suñu borom yàlla nee na yowmal qiyaama da ngay gis boo génnee sa bàmmeel benn jàng ñangoor mooy daw laxasu la boo xam ne dem na ba dagar de mat sëkk bu màttee sa loxo sa lexu ndeyjoor màtt sa lexu càmmoon naan la ana maaluk ana kanzuk man maay alal ja nga dencoon bañ koo génne zakat alal ja nga dencoon doon ko noose alal ja nga dencoon bañ koo jox fuqaraaw yi gannaaw ba malaaka yi jël ko def ay xeer tàngal ci sawara di paase sa sa jébi sa kanam sa gannaaw ak say wet nga la way góorgóorlu leen ngeen bàyyi xel daje bu màgg boobi loolee dana leen delloo gannaaw gannaaw bi suñu borom mu ne wa aati zal qurba xaqahu wal miskin wa ibna sabil wala tubazir tabzira fexeel ba ña nga xam ne ñooy sey jege ñaale di mbokk ña nga fuuta ña nga Casamance ña nga xamee ne ni ay miskin lañu ay fuqaraaw lañu ña nga xam ne say dëkkandoo lañu ngal la way alal jooje nga nar a dem di pasar pasare nemmeeku leen ci day leen ci jox guddi jox bëccëg zakat farata la waaye gannaaw gannaaw farata zakat boobe góorgóorlu leen di leen nemmeeku yonente bi alayhi salaam mu ne wallahi gëmul wallahi gëmul koo xam ne ma nga fanaan biir ba fees dell te dëkkandoom ma nga nekk amul lu mu lu mu lekk na am yéen ñi miin jàkka ji ak yeneen jàkka néew na nga toog une semaine démb ci mujj fii ci jàkka ji néew na nga toog une semaine lu dee nga gis ku taxaw ci buntu jàkka ji wallahi ay fan ngi ci tàkkul sama kër na am lu ëpp ci ñoom waxuñu dëgg mais lu tax ñu koy laye mooy loolu daa am daa am ci dëkk bi ñoo xam ne daan toog ay fan fan fan duñu am cin buñu bu ñu teg loolu nag yow mbokku julit mi yàlla subhanahu wa taala wërsëgal alal bépp dërëm boo xam ne yaa ngi koy yëkkati nga la waay fexeel góorgóorlu sa kemtalal kattan fàttaliku keroog ba ngay rendre compte ci kanamu borom bi subhanahu wa taala borom boobu dee moo ne koo xam ne ragal na yàlla fa maa mën a aata wattaqa koo xam ne ma ngay dépensé waaye dépense yëpp da tay boole wattaqa amul dërëm bu muy génne mille francs un million bu muy génne lu dul wattaqa ma nga cay xool lii ndax ngërëmal yàlla mi ngi ci d'abord daal di koy joxe ci yàlla tex suñu borom mu ne danaa ko yombalal ak yombal danaa yombal dundam yombal sukuraatam yombal jaar bàmmeelam yombal ko ba tabbal ko aljanna yàlla yàlla boolu ñu ca waaye amma man baxila wastaxna wa kazzaba bil xusna fa sun yassiruhu lil usra amma ki nga xam ne weddi na ne xéewal gi ci yàlla la jóge daa di nay ci alal doodee ak ba yàlla amoon ci moom joxewu ko ak ba nga xam ne masaakine jege ñaale joxewuñu ko suñu borom yàlla mu ne kii danaa jafeel ay jafe-jafem ba la nga xam ne tabbal ko la nga xam ne mooy sawara e yéen bokk julit nañu góorgóorlu bu baax xool ne alal day dafa war a doon loo moom wurul doon lu la moom alal ji nga moom mooy loo xam ne say loxo la nekk nekkul sa xol yaa ngi ci profito xam bu baax ne man day keroog ba may ñëw ci kaw suuf damaa ñëw ak yaramu neen yaramu neen laa indi waaye bis boo xam ne maa ngi génn ak kaw suuf yaramu neen laay delloo kon diggante bi yàlla damaa dénk lii ma yàlla dénk danaa fexe ba am ci la nga xam ne nii moom mooy ngërëmal yàlla bokk na lu tubaab yi di wax mooy dañ naan un bon chemin vaut que vaut mieux que un long discours doomu aadama bi nga jox ko misaal muy gën nga koy nettali nettali bu guddi moo tax suñu borom jox ñu benn misaal ci benn jaamam jaam boobu mi nga tudd Qaaruun suñu borom yàlla nee na da ko xëppoon ci alal ba magasin yim daan denc ci alalam soo dajale woon caabi magasin bi ñu indi usba usba arab da koy wax ñetti ba juróom-ñeent ñu indi usba ay juróom-ñeenti ponkal buñ ñëwoon bëgg a yëkkati caabi xaaruna attanuñ ko magaa yu magasin yooyu nan la war a toll loolee bewloo ko ba nga xamee ni nii mu daal di génn ak mbewoon googee bokk na lu mu fassiru ni di wax keroog ba mu naan xaraja ala qawmihi nee nañ xaaruna junni fas la génne junni fas tege teg boo xam ne tegu or la junni jaam topp ci gannaawam muy wone la nga xam ne ni moom mooy taaram borom xam-xam yi nekk fa ñi xamul nekk fa ñi xamul naan ay waay aka neexoon yàlla may ñu lim may xaaruun xaaruuna daal borom cër dëgg-dëgg la walla waay yow jeune musulman bu mu la dal abadan nga gis un jeune mi nga yor ci ay Porsche am ma nga yor ci ay Hummer ma nga yor ci ay nangam ngay xalaat li mu am xalaatal fan fan la ko jëlee xalaatal keroog bi muy rendre compte borom xam-xam yi ñëw ne xaaruun e waaye lii la yàlla wërsëgal sàgg ko ci ngërëmal yàlla àllaaxira bu la fàtte sa cër ci àdduna ni la yàlla baaxee rafetal la may la alal ju romb say soxla yaa ngeeg ay dëkkandoo ak i mbokk amuñu e waaye rafetalal jëm ci ñoom ahsin kama ahsanallahu ilayk mu ne waay yàlla lan innama wuutituhu ala ilm man lii sama xam-xam sama expérience sama business sama nangam moo ma ko may waaye jóge leen fii waay gis ngeen suñu borom yàlla subhanahu wa taala xëy benn bis nan la def indi lu mel ne lee ngeen dégg ca turki xasaf naa bihi wa bidaarihi l ard xaaruna ak quartier bu mu dëkk woon yépp suñu borom indi benn tremblement de terre dugal ko ci moom ak la mu yoroon lépp suñu borom yàlla nee na ña nga xamee ni nii ñoo ko doon ñee naan ay waay ñi ngi sant yàlla lawla an manna allahu alayna la xasafa bina bu dul woon ak yàlla ñu baaxe kon yàlla danañu boole suuxal ñu loolu it mooy yow ndawal jurit yóbbaale ko yonent bi alayhi salaam nee na àdduna ñeent rek dafi nekk koo xam ne yàlla may na ko alal may ko xam-xam mu cay def la neex yàlla am ko koy ñee ak a neexoon ma am li diw am bay def lim mën a def ci ngërëmal yàlla yéen ñaar yéen a bokk fay yowmal qiyaama keneen ki mooy mi ngay gis waaju am alal ma ngay noos ay këri milliards ay oto ay cent millions ay voyage yu dul jeex ngay mébét e waay diw diw day moom waroon naa am li mu am bay def li mu def suñu borom nee na yonent bi alayhi salaam nee na yéenay bokk pay ga la nga xamee ne ni moom mooy yowmal qiyaama lii mbokk benn misaal la bu ñu suñu borom yàlla wan ca la nga xamee ne ni mooy xaaruna boobee ngan la way yow fàttalikul yow julit ne kat su neexoon yàlla jalla wa ala day mooy mu boole la ci faqiir yi te wallahi mbokk julit xamal ne doomu aadama loolee borom bi subhanahu wa taala nekk ni ci xaaruun innama utituha ala ilm wallahi raison bu tax doomu aadama am alal amul doomu aadama bi xam-xam bu rëy taxul nga am alal doolu ju bëri taxul nga am alal sa baay di aristocrate taxul nga am alal at yu bëri taxul nga am alal alal yàlla koy jox ku ko neex rek yàlla tànn ku ko neex jox ko alal nattoo ko ko kon heure bu la yàlla boole yow bokkoo mukk ci ñuy xalaat dem di sukk ci kanamu nit di ko tàllal loxo ay waay ngal la waay santal yàlla heure boo gisee nit ñi jëm ci yow di sàkku ci yow ndimbal santal yàlla ci loolu santal yàlla ci loolu gën jaa màggi sant te mooy bu nee xol yàlla mu wulba ci jamono te wallahi yàgg nañ koo gis ay nit ñoo xam ne demoon nañ ñu leen di rang ñu dem ba ñoom ñu wëlbati ko dem di rangaate loolee ngeen bàyyi ci xel bu baax sant borom bi ay yàlla subhanahu wa taala yooyu mu ma boole ci nii daa di góorgóorlu lu loo loo xamee ne nii mën nga kaa def nga def ko ca ngeen bàyyi xel mbokk julit alal ji bari gu lum bari bari bari fexeel ba fooy def na doon extrême nécessité xoolal la fooy war nga def ko fa te yem ci loolu kër gi ngay tabax na doon ba cent millions mais na doon loo xamee ne nii lu war la amma lépp loo xam ne luxe la ak yàq la dulit moytu ko rawatina tey jii li gën a metti mooy ci turu diine la ñuy yàqe nga gis ñuy woote ay ndaje di di puukarewoo lan lañuy puukarewoo mooy rey nañ fa mille nag rey nañ fa trois cent giléem rey nañ fa nangam nangam ba wallahi loo xam ne nii gis ngeen ko ci yéen ñëpp ci ci internet bi benn waay mi ngi taxaw ci benn mbalit di yëkkati jugo nag yi naan xool leen mbalit mi di sëñ diw doo nga ko am mi ngi noonu di yëkkati jugo nag yi ak faaru nag yi ci mbalit bi naan lii sëñ diw rek moo ko am mbokk ndax loolu yàlla bëgg na ko sunu borom mu ne inna al mubazzirina kaanu ixwaana sheytan wa kaana sheytaanu li rabbihi kafuura ña nga xam ne dañuy yàq ne mbokk sheytaan lañu te sheytaan ne day dafa weddi boromam rasul sallallahu alayhi wa sallam di dox ci mbedd madina yi ba mujj mu romb benn tàndarama mu jël ko faxas ko jox ko ki mu àndaloon ne wallahi su ma ragalul woon ne daa bokk ci azaka yi dama koy lekk waaye yàlla daa xaraamal ci moom azaka loolu it ngal la waay kër gi nañuy moytu yàq di jël di feesal poubelle yi nañuy moytu yàq ci loo xam ne nii ndox ma la nañuy moytu yàq ci lépp loo xam ne yàlla wërsëgal nañu ko te xam ne lu la yàlla wërsëgal ba ngay ba nga koy yàq rek am na jaamu yàlla bu la gën fuuf ma nga ne siiw gisoon ko ba facca ajoom yal na yàlla wërsëgal ñu wërsëg wu dagan yal na ñu wërsëgal ñu jële ko fu mu gërëm lépp lu mu teg suñu loxo yal na ñu wërsëgal ñu delloo ko ci ngërëmam yal na yàlla musul ñu ci ak nay yal na yàlla musul ñu ci yàq yal na yàlla musul ñu ci ak xayal yal na yàlla musul ñu ci ak lottu yal na yàlla dox suñu digganteeg lépp loo xam ne lu xaraam la yal na yàlla dox suñu digganteeg lépp loo xam ne ak yàq la yal nañu yàlla barkeelal njaboot gi barkeelal ñu alal ji may ñu aafiya fi dunya wal axira allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين